assemblée ñii di député yi ngir ne dañuy xool ndax dañuy daaneelum déet cré yi ci gàttal <laughs> euh, modification boobu noo koy jàngatee. waaye ma ko jàngatee rek mooy analyse ban nga ci def. analyse ma ci def tey nag bu transparence naa la ci def. waaw loolu laa bëgg man loolu laa la xamee sëñ bi. ah déedéet noonu laa ma sama di nga ñëw tey di ma accusé. ba pare tey tamit nga wane da ngaa far parce que. non non non non non ji bi nga wax loo xam ne moom man daf may jaaxal. li ma ci jaaxal li ma la mën a leeral nag fii mooy analyse ci mbir yi nga wax. àdduna boo weree doole lu metti metti mbir yi day ko teg ci yoon bul xàmmee ki ànd ak yow ki àndut ak loolu dëgg ndax alxuraan daf ne du bis bu set baay rey bay mooy li wala di wax wajal gal ay yaamu ñu daa widu xaa ne parfois yaa yor pouvoir bi defe na doo ko ñàkk mhm. di ci def la neex nee boo koy ñàkk mhm. doo ko doo ko yëg mhm. muy créer li tax Macky Sall maanaam gëm na tey daa war dañ te démb waa kër Karim yi ne daa war a dañ moom mu ne warta dañ tey jii moom mu ne daa war a dañ parce que conséquence bi Karim Wade doon dund waa kër Karim bi ko dund moom defe na ne jub na ko te kàmb la goo xam ne bu ko suulut mën na caa tàbbi mën naa ko suul bala ma caa àgg loolu nag nit ki li la koy may nga man ko mooy boo nekkee ci jamono yi nga amee doole ak jamono yi nga niwee doole jamono yi nga wéree ak yi nga wéree dee jamono yi nga amee force ak bi nga néewee force lu ci ne rek ngay utiliser xel mi la yàlla jox maanaam nga bañ a jaay kenn doole jël mbiri di ko teg yoon soo ko dee def bés day ñëw mbir yi boo ci mujjee du la métti ndax borom xam-xam ba dafa wax ni gannaaw gu leen romb defar leen gannaaw ba xamu leen gannaaw gu leen di mujjee nee gannaaw gu leen romb defar leen ndax bu ngeen di mujjee bu ngeen amee amee sens tombé ci lal ya ngeen daan lal dana ci yéen te su boobaa da ci tombé ndax bu ngeen lalee ba benn lal bu nooy am bi ko waa CEDEAO ne ko du kuur bu normal waa Union européenne ne ko du cours bu normal américains yi wax ko ne ko du cours bu normal boobu bu leen déggoon tey du jóg dajalay député ne leen jëlee ko fi Abdoulaye mi nga xam ne day utilisé wu ko woon ba mu bu war a dem fi xamoon na ne mi ngi fi waaye jàpp na ne du lu war a utiliser ngir ku koy utiliser itam ëllëg mën naa doon yat wiy jóg dal ci sa kaw mu bu ko fa jàll. Hmm. kii nag yat la boo xam da cay jël door dóor ci wu nit door ci wu nit wéeraat ko. Hmm. bëgg daw jëm ci yat wa gis na yat wa ñam ko dóoroon nar nañ ko caa njëkk wala ñam ko doon bëgg a dóor nar nañ ko caa njëkk mu ne na fi yat bi jógee bala caa bala caa gaa yi jot hmm. loolu wax ci d'accord kon léegi euh, yan enjeu politique ak euh, sociaux quoi je veux dire moo mën a impliqué li nga xamante ne ni moom mooy modification yi ñu teg jamono ji keroog ñu ñu wax article 87 suba ñu ngi wax kere yi. Ah. entre autres quoi les modifications. entre autres daal li ko waral mooy gars yi xam nga fu ñu toll. waaw impact yi yan la mën a am wala enjeu yi ci boppam. waaw xam nga kere yi cour de répression enrichissement illicite maanaam boo xam ne day lijjanti ku jël alal yow moom boobu cour baax na. Mhm. waaye boobu cour it damay àq ak yelleefu nit ki ma mën a def appel mën a justifier ne fii laa jëlee xaalis bi. Mhm. xam nga àtte noonu la. Mhm. àtte nit ki même bu rayoon nit nga tiim ko nii mu di ko yow en tant que juge sax nga bokk ci teemoo yi nga xam ne ko mu di ko su paree bu ne rëyuma ko sax war nañ ko war nañ ko bàyyi mu di ko wax mhm. ah oui nañ koo may sañ-sañ mu naan rëyuma ko mhm. waaye rëyuma ko jëm ko wax na du ko défendre mhm. du ko tee demit ci prison ba waaye dañ ko war may sañ-sañam mu di ko wax may ko sañ-sañam mu dem fay ko ko koy wax le te loolu ñu bañ ko ko toppee bañ doon ci moom crime xam nga dèjà amul kuñ àttee pare ne la yokk nañ ci say daan nangam ndax yaa ne defoo ko defee fekk yaa ko def ndax dañ laa may ngay lay di la may ngay teggil sa bopp tuuma di fay sax ku la koy defal ak doonte yaa def mooy jëmmi créé yi loolu waroon na caa bokk. Mm-hmm. ñu ma ndax nee na créé def ni amul dañ maa may. Mm-hmm. amul dañ maa may. Mm-hmm. te Macky Sall moom saxal na ne Ablaye Wade da ko may. kon kooku dèjà bu demee créé lu muy wax la fa bëgg a teg rek dèjà du tegu. mooy la créé yi bañ moom loolu la wax Ablaye Wade nee na man maa ko ne dañ man maa ko may xaalis te mayu ko. loolu la nga cay jàngee mooy Macky moom li may daw xam na ko. beneen article 87 mooy maanaam dissoudre assemblée présidence saa su ko bëggee man ko. xam nga Macky Sall xam nga lu ko li ko tee woon a jënd oto yi député yi jàpp ne bu jëndee oto yi député député ji Ousmane Sonko am danañ ami am cortège bu rafet loolu tax jënd ko hmm. waaw aussi député Ousmane Sonko yéen a ca bëgg xalaat loolu campagne waaw loolu laa gis ndax dañuy parce que dañuy campagne te campagne dafa am lu mu laaj li tax it defu ko mooy moom Ousmane moom Macky Sall yàpp na ne assemblée nationale bi ña fa nekk maanaam nanguwuñ li système bi daan doxal jékki-jékki beru voté procès ba toll ne OCM ay lojum yoo xam ne tubaab yi dafa def nañ seen i étude ba tara ko ci seen i réew ñenn ñi même na nga ko signaler comme nañ koy defee ci cigarette ah ñooñu jële nga indi ko ci bi parce que waa système bi xam nañ ne am nañu ñu doon rax te bokkuñ ci système bi mhm. moo tax ñu bëgg a dajaloo ngir dissoudre waaye leen seen député bañ nañ d'accord député yooyu it la leen tax bañ mooy leen jàpp nañu bu ñu dissoudre assemblée bi ci 3 mois bu ko Macky Sall waree def dissoudre ko assemblée du assemblée dañuy seen doom ba tànk amaan bu ñu ci assemblée ñoom ci ay ci ay amaan lu jën investir parce que député moom at mu ne nga gis ne ñañ faloon bokkut ak ñañ falaat am nañ ci falu di faluwaat waaye euh, ci bañ ànd ko bañ ñoom seen seen intérêt la ñuy préserver Khalifa Sall it mi nga xam ne Macky Sall toog na ci kanam ci dialogue bi di ko dëggal te moom mu ànd ci beneen moom lu ma a xew naa bokk kon moom bañul ko dissoudre assemblée moom la ci ay intérêt mooy présidentiel lu bëgg dem ñaa la ci seen intérêt mooy seen poste de député ak seen avantage lañ bëgg a téye léeg nit nga ànd ak moom ci euh, politique waaye léeg-léeg intérêt bu wutee da ngay taxaw waaw waaye doo gis kenn ko bokk Pastef di wate boobu loola euh, sëriñ bi chaque jour nag bu ñuy jeexal émission dama laa daan Euh, laaj looy jeexale waaye tey moom man maa lay tànnal li ngay jeexale xam naa ne tey dictat damay nekk dictateur <laughs> waaye xam naa ne di ma ko nangul ah, tay ji fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet ci atum euh, ñaari junne ak ñaar fukk mm-hmm. ñu ngi fàttaliku fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ci atum 1927 ci Amadou Bamba Xaadimal Mustafa daal di laaxtu waa day dafa wax ne ci ay xasidaam benn xasidaam mu ne man lu may du ma faatu mu Sëriñ Tuubaa mu ne man du ma faatu maanaam sama faatu yàlla far na ko. waxee waaw ah, su ko waxee rek mooy maanaam faatu ngeen xam gi alxuraan na wala tax si ban la si ne xusuroo fi sabilillah amwaatun bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaquun. dañuy hmm. bu leen jort ne ñu doon jeex ci yoonu yàlla dañoo tëdd dee fekk dee deewuñu de. Hmm. ña nga ci yàlla mu leen di dundal. sëñ Tuubaa tubaab yi ñu ko yóbboo bi ko jëlee fii dañ ko yóbbu euh, Gabon jëlee ko Gabon indiwaat ko Sénégal jëlee ko Sénégal yóbbu ko Mauritanie jëlee ko Mauritanie indiwaat ko ci yenn Jolof bi ko jëlee jigéen jëloon nag mooy mar mooy marxalat bi nga xam ne mooy mar marxalatul axira mm-hmm. maanaam mooy e, marxala mooy e, mooy mujjug laxas gi mu laxas mooy dernière étape mm-hmm. bu mu dund ci dundam bu mu yegsee dafa bind benn benn lettre benn kayit jox sa sëriñ Amsatu mm-hmm. bind wa ne ko kayit yii di feeg yaa ngi may gis ci saayir bu ko masat ndajj def ko say wax ne fa ko gën a dee fa nga fa gën a fonke hmm? wallaahi sëriñ Amsatu bi mu toogee ba sañ bi won ko gannaaw ci saayir dajji kayit wa sëñ Tuubaa bi ne kayit daal dina am sëtu su su bis bi may bi ma jëlee fi yóbbu ma Touba ak bis ma duggee Jurbel fukki at ak juróom laay dundaat ci kaw suuf door a dem Touba loolu la ci sëñ Tuubaa bind ni bi mi bindee jaawartu jaawartu jaawartu rabbil jaawartu rabbu jaawartu bil furxaani rabbiyal muhiin saa sax tulahiin ci biir da caa junj ak faatum xajaman lil kaw ni jooji xajaman boo ko soixante-cinq cent la mooy li ko sëñ Moussa Ka ne ko dangaa gane àdduna ci xaama sarxin muy mille 1270 bu muy gane adduna boo ko xoolee moom bi muy avancé boppam ne dafay jóge jaaral ba di xajamale mooy dëkkaale na maag aji fent ji ci ma amee xajaban mooy kawteef la ko wooyee noonu yi waaye ba pare da koo jëlaat boo ko jëlee ci lettre arab 76 ans la xaama sarxin ba xaama woom sa sin noonu la tëddee keroog bi muy bëgg nelaw bokk na ci discours bi mu bi mu mujj def rek mooy wala ni mu ko njëkk mu mu ko mujj tëralee mooy mooy sang bi dafa xëy bis xam nga daa baaxoon at mu ne. da daan sangu ba set sañ sa ba jekk. genn wër mbedd yi dem di kat. bi at moom bi mu ko defee dafa ñëw woo sang bi dagana moom secrétaire am particulier la woon ni ngeen ko xamee. Mhm. na ko man de dama doon teeru natt yi sama borom yi sama borom ne ma natt yi moom jeex na. mooy ko sëñ Moussa Ka ne kon yoroo sabong te dem fanaan diggante kaw salaak ginaan nottil te lekk nag sanaan jaajëf defar nga xarnu bi di ku weex diggante askan yu du jeex fu nekk daam def nga fa a yor waa xarnu mu ne ko yàlla day may na ma tey jii mboolem lu duy xéewal ci adduna jaglal na ma ko te at mu ne samay xéewal day yokk sama am nattu jaax na mm-hmm. loolu kon moom mooy tàggatoon ak bindee fi benn bis ci mu yi mu ne Serigne Malick Ndiaye dama bëgg nga dajale mi nga dakaar gi ñu denc yàlla na ko yàlla yërëm bëkk nekk noonu bu ko jege wool ma fere yi mooy seex si hmm. mu woo leen ba ñu ñëw mu dajale leen moom sëñ Touba def discours am bu siiw ba ngeen xam comme ni ko sànq ba defoon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam man damaa bëgg ngeen déglu li may wax te jàpp ko hmm. ndax amaana wax jii mooy jimee mujjee waxtaan ak yéen hmm. mooy kër gii ak dëkk bii ak yoon wii ak réew mii wala lu ñu may askanale lu ngeen fa gis rek mën a jaamu yàlla ko fa indi ak lu rëy rëy rëy jaamu yàlla googu ku ci nekk nekk leen ci ku ci nekkul nekk leen ci mm-hmm. daal di xëy bis daal di woo mbooleem bëkk néeg ya fa nekkoon mu yeewi leen jël ay caabeen denc ne bis ñi tey takkulootuñu tekkeetuñ la ma tëju tëjlootuma la buntu bi tëjlootuma mooy takkulootu nga tekkeetuñ la tekkulootuñ mm-hmm. la nee nañ ma wool suñ Modou Moustapha suñ Moussa Kane la borom kun téléphone Moustapha ca ñaaxeen mu ñëw yóbbu ko Touba ci kon fa yeggoon mm-hmm. mi nga mujj bind xasidaam boobu ba xasidaam bi dama koy dama koy xaw a fàtte waaye boobu daal ci la doon wax ne ki bind mbind mii anna kaatiba hasil huruf tarfo malaayikati ila tuba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki bind mbind mii mooy kii mujj bind si ak yéen te li ci ci li ci lay mujj a waxee ak yéen xaatimatul munaajaat du mooy ni mu tuddee xasida bi mooy lii mooy mujjanteelu waxtaan bi may waxtaan ak sama borom mu hmm. Mouhamadou daggan ak ku ñuy wax Ahmad Touba am naa raloon boo xam daa bari lu muy dekk Touba ama na daag ma secrétaire particulier sëñ Modou Moussa bi mu ñëwee ba Diourbel am na fu mu jàddoon waaye bi mu fañ ko sëñ Modou ko a dégg mu yëngu mooy dañ ko gëj a dégg mu nekk ci kees yi di du ko ko dégg du ko génn hmm. sëñ Modou Moussa dikkee ànd ak mbooloo ba fekk ko fi mu tëdd mu jël xaatimatul munaajaat teg ko ci dënnam moom sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuulullaah Cheikh nee na sëñ bee ne ma damaa bëgg su ma fi jógee yow nga sang ma ak Ahmad Tuubaa hmm. dagan nee na fa ana ujahizu haasihi haasihil eh, jism jism sarif ne man maa sàng jëmm ju tedd ju laab ju màgg ji doo xam ni ndox mi koy sàng ka laabal sax jëmmi Sëriñ Tuubaa ji gën a laab waaye loolu day sunna rek moo la ñu nañ ko def nen ak naa ak naaram bu ñu wax Ahmad Touba ak alkaatiba haasihil wuruf aqukum Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak seen mbokk mi ñu xamul lam ñu Dagana mhm. nee na lii maa ngi ko def ci waxtu wi guddi gi tàmbalee avant fajar di xar nee na su woo nañ Cheikh Mouhamadoul Bassir sëñ Maodo Moustapha nee na ñu ne ndaw ci sëñ Fallou ca euh, Ndindi sa sëñ sa maam Thierno Ibrahima Fati ci Daarul Mouhty ak mboolem Cheikh Safa Diego nee na 27 personnes personne na xisri na ñu maanaam euh, ñaar fukki nit ak juróom-ñaar teewee jullee ga. d'accord nee na ñu jullee ko ne bi ñu koy jullee ba fajar gi ne bi ñu koy jullee ba pare di ko di jégal ba xam ne ko defar. nee na nee nañ ndeysaan julli fajar daal jot suñ mbàkk bu sene moom mii de moom a jànguloo ne ma lu ñuy defaate bu julli jot nañ ko bàyyi ñu dem julli ci nee na ñu bàyyee fa sëñ Tuubaa ca paasa moo tax maa ngi lancé foofu appel murid yëpp taalibe yëpp sëñ Tuubaa na leen wóor ne lu leen nit mën a wax ci moom lu dul dundal suñ sundal sa yonante bi ak fonk jullee koor ak li ko yàlla ku la ko mën a wax lu dul lii wax na la la ca gannaaw dëgg ku la wax ne dafa mas a génn barang sarian toll ni tarfatal xay ni ku la ko mën a wax wax na lu dul dëgg mosu koo teg ci baatin mosu koo teg ci saayir sama sëñ abi bu mbàkke mosam mosam jur dong la ko defut waaye moo ko léppal dégg nga sëñ abi bu nee na man sëñ Tuubaa mi ngi leen waxtaane bu ko teg ma a xamoon nee na bi ñu ko dencee ba pare ndeysaan kenn ku ne ñibbi këram avant fajar taxar su ma dem dagan nee na dama dajeeg benn waay ndeysaan ci buntu yi ci bunt sëñ buntu kër sëñ dana am ko ne ma damaa gént biig daje ko ci buntu bii ngay jàng wa ma muhammadun illa rasulun xad xalat min qablihi rusul afa iyim maata aw quutilan xaratum ala axaabikum ko al amru kama taraw da ma daje yow fii nga ana was ma ne sëñ bi dafee jógee ma ne ko mbir mi daal noonu ko gisee rek la demee saa mu demee daga ne la wala tasal xanil afaili wala xaawil bul toog di laaj mbir yi nan la demee woon ak nan la fa tëddee woon daal keroog daal laajam liku nafsun li ay ahadin yam li ko nafsa ne kenn ku mën amal boppam ci situation yi amut sëñ Musaa Ka ni sañ Musaa Ka ni maanaam boo jullijee euh, ca yeew xatam moom si yaakamaa yéem te yéem goo xaw ne taxaw na njaareem boo jullijee ba mag ñi ñëw ba sàppi boo xalemee àdduna far la sàppi tabax yu rëy yooyee fataax Njurbel boo xalemee Tuubaa mel ni Burbal wasalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah